jàmm ginnaaw bi ñu ko tegee loxo Seydina Saliou Thioune di doom ci Cheikh Béthio Thioune yoon bàyyi na ko mu ñibbi këram ci fàttali nag Seydina Saliou Thioune doom Cheikh Béthio Thioune ji ñu ngi ko tegoon loxo alxamis gi nu génn waaye tey ji ci ajuma ji la ko yoon daal di bàyyi mu ñibbi këram moom nag li tax ñu tegoon ko loxoo moo di dafa duggoon kër kii di soxna ba tóor nekkoon soxna ci Cheikh Béthio Thioune dal di koy saccagé dal di fay dóor sax benn vigile boo xamante ni mu ngi woon ci moom ak ay taalibe yu mu àndaloon ci ginnaaw bi nag la soxna Butóor dal di génnoon woote ab conférence de presse ñaawlu mbir mi xamle woon ni dina porter plainte ki nga xamante ni moo di Serigne Saliou Thioune di doom ci Cheikh Béthio Thioune ndax kat dafa def violation de domicile coow loolee nag mu gis tukke woon ci li nga xamante ni moo di héritage bi fi Cheikh Béthio Thioune bàyyi te doom yi Cheikh Béthio Thioune ji di Serigne Saliou soxna yi fi baayam bàyyi dañoo bëgg a moo li nga xamante ni moo di alal ji fi baayam Cheikh Béthio Thioune bàyyi woon loolee moo waraloon ba Seydina Saliou Thioune daal di moon kër soxna bu toog di kenn ci soxna yi fi Cheikh Béthio Thioune bàyyi daal di fay dugg ci la ab bataille rangée daal di juddoo woon ñu teg ko loxo tegaale loxo doomu soxna Aïda Diallo ak conférencier bi di Serigne Saliou Mbow waaye nag jamono ji mën nañoo wax alhamdulilah ndax yàlla def na ci jàmm kii di Seydina Saliou Thioune mi nga xamante ni yoon tegoon na ko loxo bàyyi nañ ko mu ñibbi ci këram laata loolee dañ leen di digtalaat beneen vidéo boo xamante ni Cheikh Béthio Thioune defoon na ko laata muy génn àdduna te boobule vidéo njiital cantakoon yi doon na ci sax séddale li nga xamante ni moo di kër yi fi bàyyi dañ leen di bàyyi rek ngeen seetaanal ko seen bopp man koo yërëm man koo dimbali moom lay sant bu wér sëriñ bi buñ doon wax buñ doon wax yow ni nga ànd ak ñun kon kon kéemaan lay waaye adduna dañoo war a jàng nii nii la borom kër di ànd ak soxna waaye nii la soxna di ànd ak borom kër ñu liggéeyal faw ñun say jaam jaamaat lañu dañu ànd ak yow liggéeyal faw di gën a gëm di la gën a bëgg di la gën a nopp barki sëriñ Tuubaa di gën am na yu di liggéeyal doon say jaam-jaamaat foo ñu wuyu la lii de lii xeeb nañ ko waaye ba déwén waaw wax naa leen ko nee naa dañoo war a yegg ci dem ba sëriñ dañ ko koy tugal tugal ba mu naan waa lii lu ma koy def ak lii lu ma koy doy bu déwénee bi nga ci bëgg a jàpp. ah. saa su ne Serigne Salim ne la sant boobu. waaw waaw nga sant boobu. moom bu déwénee ci wut ca penc ba lañ jëm ndax xam nañ ne commencé naa xam. man la bëgg sëñ Béthio bëgg yow xam ne sëñ sëñ Béthio rek la ñuy jariñ ndax maa ngi lay sant bu wér ci sant ci yi nga ma ay waay cofeel waay lii daa jombe sëñ Béthio lii dafa daa jombe lool lool bokk taalibe yi sant leen ma Serigne Béthio waaw léegi tey te léegi la génn bi ma toogee fii bi ma koy jox léegi léegi léegi la kayit bi. fii lañ ma fekk. kon ma ni kayit bi kër yee yegg na. te te da nga cay teg dañ koy jox jëriñ université Daara Jàmm mu def ko titre foncier. waaw ah, moom laa ko wax. jëf jëf waaw. dafa toll. andi sa yos. ah waaw ak soxna soxna Boose ak soxna ay sa nekkuñu fi waaye ku nekk ak sa yëf amul kenn ku ñee sa borom ku nekk ak sa soxna Boose kay maa ko yor la ba fees. waaw man maa ko yor. waaw Mora. waaw. kenn ko am du doom am ñëpp am ko defaloon waaye ku ne am na. jërëjëf. ah waaw. jërëjëf. waaye ku ne am na. jërëjëf. jërëjëf. waaye dama ni ab table rek la. jëf man dem bu ma fenn. jëf. lii koy defal ñii am na ñeen lu ba tuddi ñu ni sunu baay il a perdu la tête waaw dem na ba màgget na ba jigéen ñi jël nañu bi ba xamatul lu muy def fi bu dañ maa teg ku ku ku gaga waaw nii liggéeyal liggéeyu Serigne Saliou bii lii may def ak ñoom am na ñenn ci samay doom du ñëpp de ani sëñ Xaadim Cuun nekku fi déedéet de moom moo yeew xar yi ku ci de ah bokku ci de waaye am na ci sa doom samay doom ñoo xam ni cey bi déggul li may wax